aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëfati borom Tuubaa barkeb borom Tuubaa asalaamaaleykum waa adduna bi yëpp asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Afrique asalaamaaleykum waa Dakar asalaamaaleykum waa Njaarim asalaamaaleykum waa Touba ñu ngi nii tey ci bis boo xamante ni ñu ngi koy wax bisu 31 manam mu am tayo lol ci dunduk doomu adama yi waye nak eh, rew mu nek di am no xamanteni mom la ci taxawoo ak gox yi ngeen ko gis ni Touba mom mi ngi ni 31 décembre 2023 fi ci Touba Almakhroussa den gis ko ni ñi ngi ni ci urum jumaa ji nga xamante ni daanaka julli nañ gee ba pare ba tëj nañ jumaa ji ngi tëj bok ñi ngi ci 21 h 15 minutes waaye gis ngeen ko Touba moom mi ngi nii dëkku diine la dëkku lislaam la dëkku sunna la sëriñ bi bugg fii leneen lu dul diine ak lislaam moo nekk nii gis ngeen ko kundung la def maanaam selew waaw moom yàlla képp fii jib moom la sëñ bi bëgg kon nag yàlla na suñu borom defal tawfeex ba ñu dégg loolu bu baax a baax a baax ay wa yalla ñu dégg serigne Touba yalla ñu dégg serigne Muntaxa ba doon dégg dégg ay mourid doon dégg dégg ñu manam dëkk ci dëkk bi ni serigne bi bëggee ko fi dëkk ci dëkk bi waaw lii moom at ñu yëpp war nañ cee jàngee dal gi ci bis bi nga xamante ni xàmmeewuñ koog yeneen bis yi nga xamante ni mooy yeneen bis yi jàll Touba moom diine la xam Touba moom lislaam la xam Touba ngi nii yàlla nañ suñu boom gën defal tawféex ñu doon ay waa Touba dëkk ci dëkk bi ni sëñ bi bëggee ku dëkk ci dëkk bi tey ñaan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér ak mboolem njaboot Cheikh Khadim di ñaan sëriñ Amdi Modou Menda Fall yàlla na fi yàgg lool ak mboolem njaboot Maam Cheikh Fall bi di ñaan kër maanaam cheikh yëpp ak seen waa kër yàlla nañ fi yàgg lool te wér yàlla na suñu borom saxal jàmm ci réew mi saxal ko ci àdduna bi saxal ko ci mboolem jullit yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax yàlla nañ fekk waa déwén euh, ci decembre 31 décembre 2024 tal ko te fekkee ko di ko dundee ni ko sunu borom diglee ci topp yonent bi sallallahu taala tam ci sunna ak maanaam ndigali sëriñ bi yàlla nañ koy jekko ba faw barki borom taa kon tuubaa ngi nii àddunaa ngi nii maanaam eh, yàlla na si moom gën a defal tawféex wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf